mbokki internet yu Africa Global Express TV dal len ak jàmm ñu dik ak yeen ci li gëna fess ci xibaar yi dal di koy dooree ak accident wu metti wi nga xamantene dal di nay am ne gëni tay ci suba li nga xamantene nak mom modi ci di ca diwaanuk Louga bu ñu sukkandiko ci ay xibaar japp len ni nak juroom ci ay doomu adama ñak nañ seen bakkan sa sile tembe dar dar ñeneen ña dal di nañ ci jëlé ay gañu gañu ñu ngay xam nak dal ne benn bus boo xamante ni mu nga bàyyeekoo ca ko Dagana mo dal di daw ba dal di kepp ne gëni tay ci suba fa tollok usine bañuy wowe spa ci boy dugg ci ca diwaanu ko Louga bis boobee nag nga xamante ne xel yam doon daw daal dinay bari jamono joojee nag dafa daw ba daal di këpp juróom ci ay doomu aadama ñàkk ci seenu bakkan ci daar daar wi lu tolloo ko fanweer ak ñett jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti ba ñu rawale leen jamono ji ca diwaanu ko l'hôpital ginnaaw bilan provisoire boobee nag ñu daal di joxe jàpp leen ni nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu yóbbu nañ leen ca hôpital régional bu Amadou Sakhir Mbaye bu nekk ca diwaanu ko Louga bu ñu ci ndawal sapeur pompier ñu nga woon ca bërëb ba ak gendarmerie ndawal gendarmerie nag daal dinay ubbi ab enquête ci mbir wu ni mel daal di mën a xam accident boobee ana lan moo ko sooke ak lan moo ko wundu boobulee accident nag nga xamante ni juróom ci ay doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ni ni tey ci suba dinañ leen toppal yooyu xibaar wëral leen ci lu gën leer way leen di abonné ci suñu chaîne Africa Global Express TV